abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am actualité saa yu ne abonnez-vous. mbokk internet yi Buzz Media TV la chaîne de patriotes dal leen ak jàmm mbokk mi nga xam ne day doog gis pass bii di Buzz Media TV te abonné go ñaan nañu la nga dal di abonné bul fàttee bës ko la de notification bi. waaye nag bul fàttee dal di bés loxo boobu muy laajëkk bi dana ci am solo lool may leen ñu ay kër yu lool ci commentaire yi kaddu Pape Alé Niang gannaaw émission boo xam ne mi ngi koy def ci seen mbéy di Dakar matin ma nga cay yëkkati kaddu di wax ne comme na leen ko daa waxee rek ki la di président Macky Sall ak bokkam ci élection yi ba leen yàggee wax ne du bokk xamoon naa ko bu yàgg waaye naka bu leen bel di fàtte na am na ñoo xam ne da a bëgg xam duñu bokk da ci ruuma naan na ndax naan dama leen daal li gën a wér te wóor moo di bu leen fàtte na seen candidature di Ousmane Sonko da di leen koy aar da di koy kaasal fépp ci àddina bi ngir mu mën a participer ci élection yi mën naa leen a giñal ne Ousmane Sonko bu participer premier tour mu duma gaañ yi dal di jël réewum Sénégal te nag dana ko def ci yoon kàddu yi kii di Pape Alé Niang moom soxna liste boo xam ne ku xelam màcc la jëm ci wàllum politique bul fàttee abonné te bés ko los de notification bi